Ndiaga nuyu nañ la. Euh, matériel maa ngi leen maa ngi leen nuyu di nuyuwaat euh, ñi ma toogal ci plateau bi di nuyu tamit euh, aji seetaankat yi. Mhm. tey nag ma génnaat ci beneen affaire. muy fulaat feneen fulaat feneen. feneen ci beneen i feem. Mhm. boo xam ne tamit société bi dañ koy dañ koy dund. Mhm. wala ñu di ko dégg. muy avortement clandestin. maanaam avortement clandestin ci langue Kocc Barma mu ñu koy wax yàqum biir. Eh, yàqum biir nag eh, mu doon phénomène boo xam ni bari na lool mhm. muy ki feeñ la ak ki feeñ lawul mhm. ki ko def ba feeñ le ko conséquences yi nga xam ni moo ko moo koy indi mhm. dina dema dema dem ba ñàkk ci bakkanam eh, ñan ñoo koy def ak ak lu tax ñu koy def bu dee ku jigéen ki day nekk ci famille boo xam ni ci yedd gi ci ci ci ci yee ko wala ci kër gi rus na faa indi ab ëmb mm-hmm. bu fa rusee an ab ëmb matel mm-hmm. mu ëmbi day daal di li muy njëkk xalaat mooy biir bi mm-hmm. samay waajur duñ ko gis walla ci koñ bi duñ duñ ko gis xelam li muy njëkk xalaat mooy noonu na dindi biir bi fan lay dindee biir bi ak nan la koy dindee loolu jar ay question la yu bari yoo xam ne jar nañ koo jàngal mais tamit am na koo xam ne tamit li tax muy dindi biir bi mooy ki ko ëmbal boroom jabar la walla muy boroom tur nga xam ne bu ëmb bi feeñee yaraangee kersa da koy jàpp moom it day poser benn question mooy soxna si nañu xool nañuy ñuy yàqee biir bi daal di jëli rek fan lañu duñu ji duñu parce que dañ koy neub dañ koy yoon da koy téré kon kuy liggéey ci walu santé lay doon mhm. té du maîtriser carrément domaine domaine bi mhm. fañ koy défé bu am hygiène mhm. day laqatu dañ koy neub souvent buñ la ko defaree ba paré dina am ay méttitu biir ak saignement voilà ak deret go xamni day tuuru ci yow deret guy tuuru nak té remplacer woko ko andi jéye biir bi metti te nga di ko nëbb ñu bañ la koo fay mën naa andi andi ñàkk bakkan mm-hmm. euh, dañuy ànd ak euh, élément bi ci koo xam ni mm. doomam mm-hmm. moo doon yàq biir bi mu yàqee biir far faatu ci wax nañu ni bi doom ji wàccee war nañu wax nañu tamit conséquence yi nga xam ne euh, avant doom ji di faatu li nga xam ne métti yoo xam ne dund na ko ak ñi ko ko def parce que da mu affaire bu doy waar boo xam ne rek ñi ñi ko ëmbal sax daawuñu fréquenté ci ci ci kër gi xamuleen ñu ànd ak Modou juuf ci élément yi dafa am mbir mu dugg sama kër li dugg sama kër dal ci sama doom sama taal mu soxna Tabara Ndour daan xëy di jàngi di toppatoo liggéeyu yaayam nekk ci sama ay recommandation سبحان الله خي اندي ندوغال ولي ما لا واخ لا ام لو دال سما كير واي لي تي ام بروبليم ديك ديك ديك موي نديرو ياق بير سما دوم ياق بير موكو راي لي مو ميتي با ميتي ما موي ديفين خم غا داماي فرال دي واخ ليك ليك ني نيت كو باخ بو ني ريني سي سانس انترديل بول فا جاي داك بو فا جاي التيني

doy na waar ba fu doy waar yem. waaw yéeme na lool la eh, ñun ñoo ko àndandoo seetaan ko mais gërëm tamit eh, caméraman bi ma àndaloon di Saloum. Mhm. Diané eh, gis nga li mu wax. Mhm. xam nga nëbb wér wér